Amadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf lii ràmm ngay bëgg a yegg ca ñag ba suur su anañu lii direeku di ñëw xeeñul neex cas communautaire yi ñuy dégg ci coronavirus bi bu dakkul du jur jàmm ne bi jàngoro ji duggee ci réew mi ak léegi cas communautaire yi am démb musu fi am juróomi cas transmission communautaire ca am na te moom rek la ñu yeneen téeméeri nit yu manqué juróom-benn maanaam 94 personnes yu ak waa mel ci réew guddi moo jaaxal ñëpp grand place nañu li jaaxal ñëpp dafa jommal waa Kër Massar ne meerub gox ba dégg nañ ko mu yoxu jaaxleem ginnaaw juróomi cas communautaire yu fa jotaam rond-point Kër Massar gi ñu doon ragal mu doona bombe bu mën a kalaate ci kaw askan wi journal bi nee nañu kilifa yi lijjanti nañu ko ba dajeeg dajaloo amatu fa gis nañu it bés bu yàlla sàkk ay kaar di yeb ay nit ba fes dell dëkkee baagante diggante Tëngéej ak Kër Massar moo waral kilifa yu Tëngéej ji teel a yëglu boole kook teel a jël seeni matuwaay ñàkk seen bopp libération nañu cas communautaire yi ñooy jur jàng ji jamono ji ci corona coronavirus bi ndax ci diirum ñeenti fan rek wàññi nañu fukki cas communautaire ci réew mi réew mi di Sénégal Sud Quotidien nañu boo boolee li fi yëpp yëpp ci cas communautaire ñoo ngi toll ci fukki cas ak juróom-ñeent li ñenn ci wi jikko woote baaxul Sud nee nañu ba léegi juguñu ca gargot yi tey lañu fi gën a wullee ñaay sur sars yi ci yi ñoo ngi ne kurul ci dëkk bi ñu bari hygiène waxuñu ci dara dandante gi ñu leen sant defuñu ko am na sax ñuy làqatu di organiser bi Diouf bu ministère de la santé ne ñu ci xët mu njëkk suur soit li xel mënuta nangu moo di ñuy teree dajaloo dem sax ba di ko tere ci barabu jaamukaay yàlla yi bu nuppi boo demee ci marché ak place publique yi di fa gisi rassemblement vox populi nañu masque yi ñuy tàkk bu ñu bëggee cas communautaire yi wàññeeku ci réew mi il faut que dañu koy faratal forcé ñëpp ñu tàkk ay masque yéenekaay bi nañu ca Tambacounda moom gouverneur ba tàmbali na ko fa nee na ku bëgg demati marché na nga takk sa masque Macky Sall mu takk ay weeram di wax bay joxoñ photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk l'observateur Macky mu mer lañu l'observateur xëy di tegal li ko merlo yéen a kaay bi nañu bokk na ci hôtel yi mu ne woon nañu leen jox docteur yi ngir ñu mën a am fu ñuy beet nit ñi te ñu bari defuñu ko ñooñee ay daana ngi leen di yot soleil national wax na ci ñu taxaw ci jàppale gi ñu war a jàppale ñenn ci ñi askan wi seen loxo jotul seen ginnaaw ci jamonoy covid 19 gi nee na leen lu mu gën a gaaw rek moo gën na dund gi yegg ci ñoom ñi ñu war a fay seen facture yi courant seen facture yi ndox ñu fay leen ko ndax luy jot jot na ñu jote ci l'observateur kàdduy di Souleymane Faye li muy moo di ñu bañ a yegg ci confinement ndax musiba lay jur ci réew mi professeur Bamba Kane nii ci la tribune bu dee askanu Sénégal bëgguñu ñu yegg ci confinement total kon dañoo war soppi suñu doxin. asalaamaaleykum daleen nag jàmm li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jilee dañu koy door ak waa Sud Quotidien ñu bind ci seen xët bu njëkk ni Covid 19 xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex jëmale ci lii ñuy duppee cas communautaire di wàllante bi ñuy wàllante ci biir askan wi mi ngi xamal ne bàjjenu gox yeeg ASC yi dugal nañ seen loxo bu groupe Sud Communication bilan wu Covid 19 démb ci àllarba juróom-ñetti fan ci weeru avril mi ngi wane ne Sénégal am nañ luy tolloog fukki cas ak juróom-ñeent yoo xam ne dañ leen duppee cas communautaire muy juróom-ñaari cas. ci ñaari fan loolu yóbbee suñu naataangoo yi ñu wax ñu nag luy jot jot na ndax nag cas communautaire yile lu raglu la bu ñu sukkandikoo ci chef service maladie infectieuse ak tropicale bu hôpital bu Fann professeur Seydi bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo yi nga xam ne ñoo faree ci Bourguiba cas communautaire ñu ngi yokk bu baax a baax buñ ci jógul dana yóbbu suñu réew fu ndox amul suñu naataangoo yi ne mbaadu dañoo jëm ci tere askan wi ñu génn seen kër yi balaa ñu cay yegg nag ñu bëri ci askan wi nga xam ne dañoo faree ci mairie bi ci ndimbalu bàjjenu gox yi am déet ñu ngi tànn ay bërëb yu bëri yoo xam ne dañu fa teg ay paan ngir askan wi mën a raxasu bu baax a baax loolu yëpp nag si ndimbalu yenn ci ay ndaw ngir message yi nga xam ne moo jëm ci wàllu fagaru mu gën a jàll li ko jaaxal mooy doxaleen yi nga xam ne jaarul yoon yi ñu doon nemmeeku ci restaurant yi nekk ci mbedd mi ak ci biir kaar yi ba tey mi ngi wëy ndax surcharge yi ba tey ñu ngi ko ciy nemmeeku ci wàllu cet ak fexe ba askan wi ku nekk sorante tuuti ñu bëri ci askan wi sàmmoonte wuñ ak ndigal waa kër docteur jëmale ci loolu le ñu wax ba tey ci law bi nga xam ne moom la coronavirus di raw ci Sénégal ak cas communautaire yi nga xam ne mi ngi door di bëri bu ñu sukkandikoo ci les échos ñu ngi xamal ne waaye bi nga xam ne dafa am ay jabar yu bëri fële ca Louga wàll na yaayam teg ci tax na ba juróom-ñeent fukki doomi aadama ak ñeent waa kër docteur di leen saytu bu baax a baax waa grand place it law bu gaaw bi nga xam ne moom la Covid 19 di law ci mim réew soxal na leen lool ñu bind ci seen xët bu njëkk nii Kër Massar moo tiital ñëpp ñu jox ci kàddu député maire bi foofulee mu xam le ne am na juróomi cas communautaire yu ñu fa nemmeeku Moustapha mee ngi di jaraafu Kër Massar di xam le ne fanweeri contact yoo xam ne dañoo jege yooyu le cas communautaire ñu ngi leen di surveiller bu baax a baax fi mu toll nii ca ñeent fukki doomi aadama ñoom it ñu ngi leen di bàyyi gët bu baax a baax loolu yépp waral sax ñu tëj marché bi ak it fexe ba askan wi nga xam ne ñoo doon dajaloo ci ron point bi ñu fexe daal ba dootuñu fa dajee waa grand place yemuñu ca ñu ñuy xamal ne fi mu toll nii Rufisque ak jege bi mu jege Kër masaar ñoom it ñu ngi artu waa grand place di ñu fàttali ni luy tolloog téeméeri kaar yu fees dell ñooy daw ci diggante ñaari dëkk yooyu le di Kër masaar ak Rufisque Vox Populi ginnaaw nit ñi seetloo ne cas communautaire yi bëri na lool moom daal li mu gisoon mooy ñu fexe ba digal askan wi yépp ñu takk masque ndigal lay doon bu ñu war a jëfee loolu daal mooy yoon bi gën a gaaw ngir law bi nga xam ne moom la coronavirus di law mu dakk muy masque fulaar musóor wala kaala ak lu mu mën a doon daal lenn moo ci am solo mooy fexe ba gémmin geeg bakken yi moom ñu aar ko bu baax a baax ñu wax jëmale ci xeex bi ñuy xeex covid 19 tribune ñu ngi ñuy wax lan moo war a tax ñu compter ci doomi réew mi ba noppi balaa ñoo woote ji wàllu lu soleil bind ci xëtam bu njëkk ne ci dimbal bi ñu war a dimbale askan wi ci wàllu dund lu soxal njiitu réew mi fu mu toll nii njiitu réew mi yemu ca ndax ci conseil des ministres mi soññ ministre yi nga xam ne ñoom la mbir mi soxal ñu fexe ba teg benn plan boo xam ne li ko tax a jóg mooy jàppale waa këri docteur ak askan wi leneen lu soxal njiitu réew mi it mooy nekkinu liggéeykat yi jël na ci ab mesure loolu yëpp ngir fexe ba kenn du ñàkk sa liggéey fileeg coronavirus bile di law suñu réew bu ñu jógee ci tolluwaayu coronavirus suñu réew ñu jàll ci l'Afrique ak fukki junni kaa yi nga xam ne moom lañ ci nemmeeku ak tit juróomi téeméeri doomi aadama yi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakken loolu yóbbee ñu ñu wax bor bi nga xam ne moom la pays l'Afrique yi yoreel ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale Macky Sall mooy layal l'Afrique bu ñu sukkandikoo ci waa laas moom dellu siwaat ci tolluwaay yi ñi nga xam ne mooy yenn ci liggéeykat yi te ñu am ay jafe-jafe jëmale ci coronavirus kilifa yi ñu ngi def seen kéem kattan ba jàppale liggéeykat yi ba ñu bañ a am benn gàllankoor jëmale ci seen wàllu liggéey te coronavirus mën leen ko yóbbee libération moom waxtaane ñu wàllu société bii di Teranga Gold urus bi nga xam ne moo am ci Sénégal Teranga Gold daal moo ci teg loxoom ñu jeexale kook tàggat yaram door ko ak waa SAD ci xët bi nga xam ne moom la duppee gaynde yi ak équipe nationale bi nag tey jii mi ngi ñuy waxtaanee Keita balde nee na woo nañ ko ci équipe nationale luy tollook fanweeri yoon dugal na juróomi bi am na ñeenti bi yoo xam ne it moo ne ci gannaaw sàddi xam la ne kii di Keita Baldé daal na mu waroon taxawee. taxawiwu ko ba tey ndax li muy joxe ci équipe nationale xeeb nañu ko lool ñu jeexale kook sunu lomb Balla Gaye 2 moo tere nelaw ñi nga xam ne dañoo bokk ci génération 90 ginnaaw ni Tafa Gueye Tyson Baboy ak nii la jee omes nee na Balla Gaye daal sàkkutee fam mooy fexe ba jiitu ci arène bi ca beneen wàll ba nag ngañ jaañ ne ak lu mën a am mbir mi du yomb lool lii moo gunoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool ñu yendoog jàmm bonjour covid-19 lutte contre les transmissions communautaires Bàjjenu Gox et ASC s'engagent c'est le titre qui barre la une du Sud Quotidien le quotidien du groupe Sud Communication indique que pour le bilan du covid-19 du mercredi 8 avril le Sénégal passe à 19 cas communautaires soit 7 cas en 48 heures La menace est réelle et est qualifiée d'une bombe à retardement selon le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de Fann, professeur Moussa Seydi. D'après notre confrère de Bourguiba, les cas communautaires s'accentuent et risquent de conduire notre pays vers un confinement totale confinement ou pas avec l'appui des bajenu gox des acteurs de développement de la mairie ou encore sur fonds propres des stations de lavage de mains y sont installées en accompagnement de quelques jeunes pour les messages de sensibilisation. Sud Quotidien souligne que les mauvaises habitudes dont les gargotes et la surcharge perdurent et l'hygiène et la distanciation sociale sont reléguées au calendrier grec. Évolution du coronavirus au Sénégal, la montée des cas communautaires inquiète, titre Les Échos, et indique que le polygame de Louga a contaminé sa mère et envoyé 94 personnes en quarantaine. Waa Grand Place s'intéresse également à la propagation à grande échelle du Covid-19 et affiche la menace de Keur Massar et relève l'inquiétude du député maire qui révèle cinq cas communautaires. Moustapha Meng déclare 30 cas à haut risque ont été identifiés et mis en quarantaine, raison pour laquelle ils annoncent qu'ils ont décidé de la fermeture du grand marché et du déguerpissement du rond-point pour empêcher les rassemblements, ce qui conduit à Grand à écrire que le rond-point, la grosse bombe en passe d'être désamorcée au moment où Rufisque sonne l'alerte et se banquérise. Waa Grand Place rappelle que des centaines de cars surchargés font la navette entre les deux villes que sont Keur Massar et Rufisque. Mesures radicales contre la propagation du Covid-19. Vox Populi nous dit pourquoi il faut rendre le masque obligatoire. D'après le confrère, c'est le moyen le plus efficace pour freiner la transmission communautaire. foulard, turban, bout de tissu, l'essentiel est de se couvrir la bouche et le nez. Concernant les contributions à l'effort de guerre contre le Covid-19, Tribune nous donne les mille raisons de miser sur la préférence nationale. Le Soleil s'intéresse à la distribution de l'aide alimentaire aux populations. Le chef de l'État insiste sur l'urgence et implique les forces de défense et de sécurité. Toujours d'après le quotidien national, une ordonnance est annoncée pour préserver les emplois durant la pandémie. Et par ailleurs, les ministres concernés invité par le chef de l'État lors du Conseil des ministres, à préparer un plan d'investissement d'urgence du secteur de la santé et de l'action sociale. Intéressons-nous à présent au coronavirus en Afrique avec 10 000 cas et plus de 500 décès, rapporte Dakar Times. Justement, parlons de l'annulation de la dette des pays impactés par le Covid-19. Maki, nouvel avocat de l'Afrique, indique l'AS. L'enquête titre sur situation des travailleurs dans certains secteurs, le spectre de l'effondrement social. L'enquête rapporte que les pouvoirs publics s'inquiètent de la situation des travailleurs et tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Macky Sall verrouille les emplois face à la baisse d'activité et risque de licenciement. Libération nous parle de la main basse de Teranga Gold sur l'or du Sénégal avec les révélations sur un scandale. Serigne Ndiaye Bouna et son associé ont de Toujours d'après Libération, après avoir sorti des miettes, Teranga Gold, qui a usé de pratiques inédites, va empocher 1 milliard de dollars en exploitant la mine de Sabodola. En sport, le quotidien du Sport Stade titre sur Les Lions et la tanière. 30 sélections, 5 buts et 4 passes décisives. Keita Baldé, l'étoile tarde à briller avec un rendement en deçà des attentes. Terminons par sunu lamb qui titre sur Tafa Gueye Tyson Baboy Yekini mise à terre balle Gaye 2 de la génération 90 sunu lamb donne la parole à Omez qui déclare que Balla Gaye 2 voulait dominer l'arène quant à Ngagne Diagne il est convaincu que ce n'est pas une mince affaire c'est tout à vos journaux et très bonne lecture